salaamaaleykum mbokki Sénégal salaamaaleykum mbokki diaspora bi salaamaaleykum mbokki képp koo xamante ni yaa ngi safoo di seetaan Actubuzz TV tey nag yaakaar naa ñu ñëwaat seet suwaat ki nga xamante ni moom mooy Serigne Cissé Borom Tawfekh ñu la waxtaanee suñu bëri si wàllum xam-xam si wàllum actualité si wàllum lépp loo xamante ni dafa njëriñu askan mi lay doon balaa tuuti bàyyi ko mu nuyoo Serigne Cissé ñu lay nuyu. aouzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim la hawla wala quwwata illa billahi al aliyyil azim Euh, mbokki julliti mbokki taalibe yi ñoo ngi nuyu ku nekk sa tur ak sa sant di jiite ci nuyo bi sëriñ Muntaxa Basiru yàlla yàggal ko fi lool te mu yor Mbàkke Bàll noonu la ñuy def di ko ñaanal tarixa yëpp tiijaan xaadir laayeen ñëpp ñoo ngi leen di ñaanal yàlla yàggal leen fi lool te nu yor di nuyu senegal gi nga xam ne fi laa juddoo nekk fi di wax ak yéen fii ci senegal maa ngi ñaan Sénégal jàmm sax fi te yàlla na fi jàmm continuer noonu lañ def di ko ñaanal bitim réew gépp di ñaanal tamit immigré yi nga xam ne ñoo nekk bitim réew ñii di suñuy yaay ñii di suñuy mag ñii di suñuy rakk ñii di suñuy suñuy waajuru góor ñoom ñëpp ñoo ngi leen di ñaanal aajo jan fa am ak soxla jan fa am yàlla na ko suñu borom saafara ba ñibbisi ci seen ak njaboot bi jaay Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam waaleykum salaam yaakaar naa ne mbégte lay doon ak contentement ñu daal di safoo di ñëw rek di la dekk suñu micro hmm. parce que lépp luñ bu ñu ñëwee fii hmm. suñ hmm. moo daanaka loolu liñ ciy def sax ay émission bari na wante boo xoolee nit ñi ñoo nu koy laaj lu baree bari daal di soxla ci ay leeral lu baree baree bari new kàttan nag moo dul lenn la rek ñaare yii moo koy waree suwaan nga yore rab rab da koy joxe suwaan ngay fooye sa bopp ñaaree ñoom ñoo koy joxe bu dee nag da nga yore rab ñaareel ci ay ci xeetu mooy yàlla kese la lay la lay jubal sa sa mandiw di tuura fu mu toll rek loolu ngay bëgg di sëy rek donte boo sëy teg jigéen tamit di nga focc say awra ba daanu yu ci yooyu rek la lay jëmee loolu moom boo amee rab ci ci yooyu rek la lay la lay xiital bu dee nag koo xam ne amuti rab am na ñoo xam amuñu rab amuñu dara coobaree seen seen coobaree bopp rek la topp xale yi jigéen yi di taxawaal wala xale yi di taxawaal ba sax ndaw manqué sa kàttan ndaw moom kàttan la léegi bu kàttan googu kii rek léegi nag daanaka day waral ba néew kàttan da lay yomb mooy waral màndiw bi di oyof mandiw bi nam war a nam war a euh, kiyee euh, dëgëre du ko dëgëre boo xoolee moom laa wax chaque jour ma ne mandiw dëgg dëgg dëgg saabu bu toqan fii tey jii tey jii ci tiise bi rek pour nga dind ko nii nii day jafe ndax ndax kii bim kii ni mel wante nag bu dee tey jii nii nii kiiwul daanaka bu tasan fii de daanaka pour nga kii ko day yomb léegi na yooyu nag daanaka day dox ci lu baree bari nga xam ne tey jii ci néew kàttan lay dox wante néew kàttan moom kuy fooye boppam mën naa laa faj ku ko judduwaal nag mënuma laa faj ana kuy fooye boppam mën naa laa faj koo xam ne tamit dangaa néew kàttan dalaa dab mën naa laa faj si kàttan yàlla am yoo xam ne buñ la ko joxee incha allah bu neexee yàlla dangaa yoraat kàttan googu te sa mandi li ci gën a am solo mooy day defaraat sa mandiwu mooy tey jii nii dama lay wax ne la bu doon looy xam ne danga koy batti mu dagg wante dana la ko battil ba nga xam tey day formé wu nga xam ne mandi boo xoolee dama lay wax ne la ay wallax njaane kese la wallax njaan bu dem ba sonn ba bu commencé bàyyi moom moo fi nekk di bàyyi siddi di moom moo fi nekk nga xam ne du amati doole ji maanaam yoo xam bu ñu la ko joxee nag day men day day dundalaat loolu waaw wante képp ku néew kàttan daal moom incha allah bu neex yàlla buñ si déggee danañ ko saafara moom ci loo xam ni amul leen loo xam da lay yooyu noonu. Hmm. na benn combat boo xamante ne am na fii moom mooy diggante guy gi ak ki nga xamante ni heure bu combat amee wala heure bu actualité amee ñu daal di xam-xam rek lay doon. Hmm. moo tax tey ñëw nag jékkee suñu micro ci combat bii li nga xamante moom mooy combat. waa gi ak nga xamante suñ boobu daanaka combat moom dañ ciy wax lu lu lu yam rek ndax combat bi daal euh, nekk na di combat boo xam jub si na wante teewul tamit dañ ciy analyser ci sunu xam-xam bi nga xam tey jii nii rek moom la askan wi bàyyee xel suñ borom dénk ko moom la ne analise wante li ma ciy analyser tamit dama koy jëmale ci contre guy gi rek euh, day wax ni rek rek ndaw la xale la moo ngi dugg si làmb wante am na noo xam ne bu mu ko baree ak guy gi. ndax bu ko bëree guy gi rek leneen mën na caa am ndax gis naa ci jëmmi guy gi loo xam ne ci moment bii nii nii ah bu ma doon mooma damay gën a def mu def ferratation gën def ndànk daal gën def ndànk bu baax baax ci combat bi ma ni nag guy gi da koy daan du ma ni rek rek da koy daan xam nga Sénégal nekk te vaar daa yomb wante damay wax li nga xam ne moom laa gis wante du koy daan du ma rek rek koy dama naa rek rek nag def ndànk ferratation ci guy gi daal ndax am na lu ma gis loo xam si guy gi daanaka bu deful ndànk man naa mën naa mën mën naa mën naa sonn daal bu ko même mën naa daan guy wante mën naa sonn mën naa sonn ci combat baak yooyu noonu daal wante daal ngi ciy ñaan yàlla yóbbu ñu ceeg jàmm daal wante loolu rek laa doon wax daal. ji moom mënut a ay violence yu métti ndax Balla Gaye Modou Lo moo fi jaar Ama Baldé Modou Lo bi di waaj a ñëw ak yeneen ak yeneen kon làmb yi mënta def ay risques ak yooyu noonu waaw ndax dana nekk làmb joo xam daal làmb ji neex lay nekk daal waaw làmb neex lay nekk te tamit xam naa daal dinañ ci foogaloo xam daal kii ci daal demewu ca noonu loolu daal laal boo xam dina ci am loo xam di ci xew daal loo xam ni foogewuñ koon ca làmb ji daal xamte daal eh, nañ ci ñaan yàlla yóbbu ñu ci ak jàmm daal bu dee dana am nañ ci ñaan yóbbu ñu ci jàmm daal wàllum wàllum càngat hmm. te càngat aussi doo boo xoolee nag wàllum càngat daanaka des nit dina dem ci sëriñ sëriñ ba mën a ñaan hmm. wante ni muy joxee nit ki sangat yi loolu mooy des ba sangat ga nam war a mel du ko mel mën na di feeñ ci yaram na ànd doole jam war a am du ko am boo xoolee bu dee wàllum wërsëg tey jii nii tey jii nii da gis ñoo xam ne tey jii nii wërsëg ci lu ne lan koy sangoo te mag ñi bu njëkk dañ daan wax ni gàllaaju wërsëg nañ koy sangoo ci lu yaatu xaw wërsëg mu daa war a yaatu ñu ne den dañ koy sangoo ci lu yaatu mooy war a nga gis mag ñi bu njëkk da nga daan gis booli booli booli booli yaatu yooyu nga xam ne armiñoo lay nekk bu njëkk moom la mag ñi daan sangaate sangaate gàllaaju wërsëg ah, wala legati mag yooyu nga xam ne moom la mairie di kii ñoom la daan sangate ay ay wàllum wërsëg ak yooyu noonu boo xoolee nag sangat gu nekk ah man book am na am na ay heures yoo xam moom moo ci gën bu dee nit ki dafa am wàllum ubbikaay boo xoolee yenn heures yi daa baax nga koy sangoolu mel ni ay fajar jëm yenn yeeg yooyu moo gën moo gën di ko sangoog yooyu noonu ànd nag sëriñ si leen di ñaan duñ leen ci leeral loolu lépp dañ leen jox saafara wax leen nangam nangam bu dee lu mel ni da ngay dindi soo yaram daa am heure bu mu gënee dafa am heure bu mu gënee naara ñaara saa boo ci jafe-jafe di sangoti sangoti yoo xam day dind day dindi leen loo xam ne ay jafe-jafe sa yaram sangoo ko yenn heure yi moo gën heure yi guddi yoo xam ne day dem ba heure yi xaaju guddi nga dind ko sangoo ko moom mooy gën wala yenn yoo xam ne kaaraangeel yoo xam da ngay kii pour sangoo ko nga tëdd mooy gën ak yooy noonu bu dee wàllum cata xeet yëpp moom mën nga di xëy saa boo xëyee sangu ci bu guddee dam bu la neex boo dee tëdd sangu ci wante sangoto daa am daa ay heure ndax rawxaan bu ne ca la mi léegi nag ñu baree bari loolu la ni bàyyi nag bu ko defee ñaan nga nam amee du du nam amee doole bu doon 100 pour cent yi moo ñëw 50 yi des léegi nag du te fekk na sëriñ ba du ñàkk man wante ni mu lay waxee garab yi wala yow na nga koy utiliser wu moom moo tax wante boo xoolee sangat dafa jar a topp moog saraxa yem ndax nee naa la sarax dafa am doole ci doomu aadama ndax nee naa la ñaan jëmm la sarax mooy ruu sarax nag lu baree baree bare moom moo koy defa ci doomu aadama fii nii am na sangat yoo xam boo ko sangoon war ngaa def sarax bii ngir sarax bu dee sangatu ubbikaay la ngir sarax bi eh, mën a xëcc li ngay li ngay li ngay xëcc li ngay yóotu moom mën kaa bu dee nag loo xam ne da nga koy génne sa yaram nag nga sangu nga sangu bare génne sarax ba sarax ba mën a dem yóbbaale ko yooyu yëpp dafa am solo te man samay sa sara sangat yu bari day ànd ak sarax léegi nag loolu loolu nag nit ñi duñ ko xam te fekk na loolu nag day day dem ba des ci doomu aadama loo ñaan loo ci bàyyi rek day day feeñ ñaan loo ci bàyyi rek day feeñ moom laa lay wax te nit ñi dafa dañuy def lii bàyyi lii te dañuy fonk sangati di di bàyyi sarax te yooyu yëpp nag da ciy joué ànd ah, li ma la mën a xam kuy ñaandu ci nga xam ne jamonoy mag ñu njëkk ñi da daan gis mag ñu mag ñi tey jii nii nga soxla benn secret dem jóge fii dem ba Saalum wala nga dem ba Bawol mag teel a fa bàyyi loola am ab ab ab ab nawetu lëm nawetu lëm nga pare mu jox la benn secret wala mu jox laaj benn benn fas ne indil fas nga indil ma ko mu jox la benn secret léegi jamono jii nag nga gis ni loo xoolal loolu tey jii ni coono ñu ci daj atum lëm nga toog ko ci nga pare jox la benn secret yow nga pare toog ci ay réseaux di wax secret bi naa ku ko def lii ko ko def nangam kooku loolu da ngeen war a xalaataat bu baax daal nit du sonn ci yenn coono yi ba pare taxaw fii di ko weere te secret secret la tudd man fi ni mën naa yor benn xaatim boo xam ne dama koy yor suba ma ñëw won la ko ginnaaw suba ma ñëw won la ko buy commencé partagé rek doole ji du bareeti ndax secret lañ ko wax secret la léegi nag boo toogee ci réseaux yi comme naa def leen lii def leen loolu nit ñi utiliser wu loo sax war xalaat <coughs> ndax bu dee 100 personnes ñoo dugg 100 personnes yëpp jël ku nekk di utiliser pour gis ko day jafe te nit nag du sonn ci dara toog fii di ko weer te xam-xam koy weer donte li ni def nag baax na si yenn sarax yooyu yëpp baax na wante nit ki daal li gën a am solo muy seetal sëriñ bu la neex nga woo ko ñaan loo ko laaj ko ay sarax mu def loolu ay sarax nga ñaan loo ko moo gën bari na ñu baree baree baree baree bar tëju barke seexul xadim internet bi leen tëj internet rawatina wàllum noob noob yi ñuy joxe ci internet bi ñooy gën a tas seen sëy di leen gën a tëj te noob dafa bu dee xaatim yii nii bu dee wàllum ubbikaay nga ci doon def moom bu baaxee baax na wante bu dee dafa damm tuuti mën na laa tëj a tëj tëj ba da nga ciy ñaan lu ba son doo gis dara bu dee noob tamit noonu la lay def da lay indi li jafe kon nag war na di xoolaat bu baax a baax li ne bëgg lu yomb bu mu tax ngay dem di siifur lee ndax kee dafa dem gëstu ji fay ci alal ji weex tàll sonn ci bu la ñëwee dina naa da lay jox lee tamit da lay ndax am na leneen doon bàyyi ci biir am na leneen doon bàyyi te ñaan ak weexal la ñaan li ma la mën a xamal ku la dàq weexal gën laa gaaw sotti li mbir gën laa gaaw nangul ak ñaan ñaan moom weexal la mag ñu njëkk ña ba léegi lool moo moo fi dox da gis di nit day ñaan lu dara ñu ko demal andi ma nangam wala dama ñawlu ab ab ab yére ba mu bees tàq ñetti morso nga andil ma ko yooyu lan daan def kon nag yooyu bëgg naa askan wi bàyyi ci xel daal te xam ni loolu moo dem ba fi ne nii sonal askan bépp boo dee askan wépp a tëju tëju gi nag mooy xam bu ñu jot utiliser wu xam bu jot bindal ma fii bindal ma fii diw joxe na nangam yooyu ay caaxaan la bu ma neexan toog ci tele bi de wante loolu bu ma ko defan tey ji damay du ma nax kenn ku du sama bopp te yooyu nag nit ñi war na noo yeew ci askan wi ci loolu askan war na noo yeew ci loolu loolu daal laa doon wax ci message boobu daal. yaakaar naa li xam ne solo loolu suñu gisee euh, lépp rek si wàllum càngat tey dañuy ñëw si li nga xamante ni mooy wàllum kaso. Hmm. nit koo xamante ni menace nañ ko maanaam porte ko plainte mbaa muy jëf loo xamante ni dafay kiit kaso est-ce loolu di ko ko mën ak nit koo xamante ni dugg waaw bu dee nag koo xam ne tey jii nii nii dan laa menacé wala tey jii ñu war laa tëj hmm. boo dégganteeg man. ñu indi la convocation door a wuy ji billaahi doo wuy ji ñu indi la convocation nga déggante ak man billaahi doo wuy ji bu dee nag bu dee nag koo xam ne tey jii nii nii nii moom dañ ko tëj bëggu mu ubbeeku tey jii ñu war kaa àtte bu ma xamee kañ leen koy àtte am na loo xam ne bu ma ko liggéeyee incha allah bu neexee yàlla ñu ma xam ko koy àtte ak ñam ñam jëflanteel problème ba incha allah bu neexee yàlla buy taxaw ci foofu dana ko bàyyi. bu ay mbokkam di ñibbi di ko yóbbaale waaw kooku man maa la koy wax beneen bi ci topp muy nit warta sàggan sax donte am natt la wante waroo sàggan sax di def yenn yéegéen wante li ma la mën a xamal am na loo xam ne dama noon duma ko wax naa ko wax laabere askan am na loo xam sa digg ginnaaw gi laa koy bind bis bu ma la ko bindalee giñ naa ko sëñ Tuubaa yaakaar ak jafe-jafe yoo mën a def kenn du la mës a tëj police mucc nga ci police ak loo mën a def mucc nga ci ay police dem kaso yi donte nag ko yor jombul kenn wante am na kaaraangeem ni ma toogee nii nii nii fas yéene def ci sama bopp loo xam ne ku ma liggéey faatu wala ku ma liggéey nangam xam nga loolu sabablu naa wante bu ma toogee nii nii ni ne yesa rek bu liggéey jàpp ma mën la neex wante noonu laa lay wax ma ne la am na loo xam bu ma koy bindee sa digg ginaaw gi noppi nga dem police ak problème boo mën a def day sedd bu dee nag koo xam ne tey dafa yor loo xam ne da koy làq ak yeneen ak yeneen yooyu am na yoo xam ne buñ la ko defalee nga def ko sa marchandise wala nga am fon ko def incha allah bu neexee yàlla bu doon loo xam ne dañ koy tere sax ñaan ñu koy yàlla wante suñu borom dana la ci musal dana ci dana la ci musal bu baax a baax wante daal wàllum kaso am naa ci <laughs> ay secret yoo xam daal yu yéeme la daal yoo xam ne yii dañ la koy bindal sa ginnaaw yii danga koy takk yii danga koy naan galax ni koy yenn yéen naa yu bari bari yoo xam daal mënu maa taxaw di ko wax daal <laughs> dëgg la waaw boo xoolee nag jamono ji damay wax benn askan muy àddina noob gu baax a jafe daanaka nit ñi may woo danaa ma fay naa fukki sëriñ ak juróom mënu maa gis dara noob gu baax moo jafe ñii naa ma ba ma déggee sëriñ ba laa la la la ba ma ko envoyé xaalis bi laa ko mujjee dégg ñii di ñaxtu yi nan bàyyi yooyu nan wuy nit ñi te xam ne ñun ay docteur lan ay royukaay lan nan wuy nit ñi ndax ñoo lekk seeni xaalis nan wuy nit ñi ndax ñun nit ñi ñun lan yaakaar ndax nit bu saa bu jaaxlee rek xamal ne am na yaakaar wante li ma lay xamal mooy am nañ ci ay noob yoo xam ne duma ma toogaat fii di ko wax yu xam ne incha allah kun ko liggéeyal ci kàttanu yàlla da nga ko gis moo xam joolaa la tukkulóor la soose la tubaab la ku mën a nekk incha allah da nga ko gis wante li ma xam mooy ñaan weexal la weexal la sama xar mi bu dee jar 2 millions xar mee di jër 1 million mun ñoo bokk xar mi di jër 150 mille bee di jër 300 mille mun ñoo bokk ñaan yi noon lan demete sangat yi noonu lan demete am na sangat gu am doole am gu new doole am xam daa yema yëpp ci ay prix la rek ndax daa am loo xam ne moom daanaka boo bëgg na jël cent mille francs def ko ci genn sangat balaa boobu sa li mu war a àndal yëpp da cay yem am na yoo xam ne boo jëlee un million mën ngaa def deux cent mille ca nanga wala trois cent cinquante ga te lépp dana baax wante am naa ci xeeti sangat yoo xam xeeti samp yàlla xam ne ni Modou bu ma la ko sampee jërëtu ngay tiit dara ci àddina ba laa la koo xam ne dañ kaa war a wàcc gouvernement bi koo xam ne dañ laa war a wàcc laa war a wàcc am na loo xam bu ma la ko liggéeyee Macky Sall ak may dégg du la mën a wàcc nuyu Macky Sall du la wàcc kooke man maa la ko wax du la wàcce laa la wax élection yi kay am na ñu ci jëflanteel du la wàcce du la élection mairie am na ñu ci jëflanteel xam nga ci lool bu baax du la wàcce wallahi alxasim ñaan lu ne la man moodu ñaan lu la man te am na yoo xam ne moodu li ma la wax chaque jour nee naa la boromi jafe-jafe dëgg-dëgg bu ma la dee sangat du la sangat ci kër damay génn yow ba ci àll bi sang la yàlla xam ne ubbikaay yor naa ci goo xam ne tey jii nii fay ma dëgg mooy tey ma defal la wante barki Sëñ Tuubaa bu ma la ko comme neex am comme naqari nga ndax yàlla da koy xéewale wante maa ngi santaat askan wi di toroxluwaat di leen gën a xam ne daal ab jaam la jaamu suñ borom la lépp daal ci suñ borom laa commencé yemale ko ci yaakaaruma kenn ku dul suñ borom nekk nag taalibe suñ Tuubaa boo xam ne toroxlu rek seen kanam laay def di kontaan bu baax a baax baax ci askan wépp di gërëm ñëpp di sant ñëpp noonu laay def di ñaanal laa Sëñ Muntaxa Basiru yàlla yàggal ko fi lool te mu wér Mbàkke Balla noonu la di ko ñaanal tarixa yëpp Tiijaan xaajar Laayeen Ñaseen di ñaanal Sénégal yàlla na fi jàmm gën sax benn bu am solo laa lay wax Modou muy Coupe d'Afrique bi dafa baax ci réew mi Coupe d'Afrique bi coupe bi boo xoolee mënta na bañ a ñàkk ñëw ndax coupe bi dafa juraat lu baree bari ci ci ci Sénégal dafa jur jàmm ñu baree baree bari ci Sénégal ci politique bi ci ci ci peuple bi ñëpp la jur jàmm ndax boo xoolee coupe li ci kanam li ma la wax ci kanam nga koy xam nag ndax kere gis naa ay ay Barthélemy Dias ñii ak ñee ñoo xam te dañ daan njëkkante lu bon dem bay nuyoo bay saafante kon xama ne am na loo xam ne jur na ko ci lu baree bari te des na yeneen ak yeneen incha allah yoo xam ne ay mbégte la yoo xam Sénégal day am jàmm ma xam ne Sénégal képp ku ko bëgg a da nga xar ñaar ndax jàmm keese lay mosaam dëkk bu Sëñ Tuubaa tëdd Baay Ñas tëdd fa tëdd fa Sëñ Babacar tëdd fa Seydina Limaamu Laay tëdd fa ñoom ñëpp tëdd fa billaahi wallaahi taala dëkk boobu jàmm lay am kon maa ngi santaan ñëpp di gërëm ñëpp waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu